alhamdulilah sànq ba léegi yaa ngi defar <laughs> di parfum parfum bi du feeñ ci bi parfum bi lan la tey cravate nga dóor de. non tey. koy charmer. non charmer wu ma kenn tamit. Eh. tamit charmer wu ma kenn. lan la dépassé nañ loolu si liggéey bi la bokk. si liggéey bi da nga bëgg a béy. xam nga Penda lu mu wax keroog ah. mu ne ma télé la télé c'est beau. c'est le beau c'est le beau. c'est moo tax nga beau. pour yow nii da ngaa di c'est Penda qui a dit. a dit d'accord et il a parfaitement raison. <laughs> la télé c'est le beau kon boog nañ boo <laughs> ma leen di jaajëfal bu baax di leen di nuyu di leen di sàngal aussi ci ànd bi ngeen ànd ak émission sunukaay yi ci sunu Label TV tey euh, ñu nekk ak yéen euh, ba 10 heures ba 11 heures nar a waxtaanee li nga xamante ne mooy may baat ñaan baat. may ma baat may naa la baat yoo mën a si làmmiñ bi waaye naka nga ko mën a defee euh, maanaam ba mu jaar yoon tey euh, loolu la ñuy dugg waxtaan si xuus ci ànd ceeg suñu invité bu ñaaw bi muy madame euh, Biti Loxo Faye man sant bee ma si jaaxal <laughs> waaye ma ko mu nuyoo. <laughs> salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku si nekk sa tur ak sa sant. di rafetlu invitation bi comme li nga wax ñu war a waxtaani bu am solo muy euh, fase may baat comme ni nga ko waxee divorce en français mm-hmm. muy itam d'actualité mm-hmm. ñu ñëw fi toog en tant que juriste mm-hmm. war ci joxe sunu xalaat d'accord donc euh, madame euh, Biti Loxo Faye sama waa ji moom moom danga xam naa danga koy jàngal juridiquement pour mu xam <laughs> parce que moom leen na doo nga la xam may naa la baat waaye lañ ko war a defee euh, mokkalu ko doonu du dëgg di jëlu loolu la voilà donc euh, balaa ñuy xuus ci biir thème bi nag ñu xool tuuti lan mooy actualité bi. loolu la ñuy waaw léegi du ma nuyu téléspectateur bi. yow ah jar nga nuyu. ah du ma nuyu. daa ko nuyu. Ah, mosuma ko gis du ma nuyu sama téléspectateur bi. sa fan si waaw ñoom. Ah. émission di 10 heures lañu bay 10 heures bu ñu jotee rek ñu taal seen télé. di la xaar seetaan suñu kaay. Ah. léegi du ma leen nuyu. waaw daa ko nuyu leen remercier bu baax a baax suñu téléspectateur yi. <laughs> di kontaan ci yéen yéen mii di seetaan yéen ñii di ñu seetaan chaque jour euh, suñu émission kay 10h 11h di leen jaajëfal bu baax a baax di kontaan ci yéen bu baax a baax continuer di ñu suivre rek incha allah yeneen actualité ak yeneen thème mm. fii la xewee suñu label TV mm. am solo yu am solo loolu tamit euh, lu jar euh, euh, tamit wax la parce que thème bu ñu fi waxtaanee rek daa fekk téléspectateurs yi wax ñu ko semaine dernière waxtaanee woon nañ divorce mu ñu doon xool li nga xam ne mooy cause ak conséquences yi tey ñu dugg nar a dugg sur le domaine juridique parce que aussi ñoom ñoo ñu sollicité ne nañ ren si semaine bi nañ wax lépp loo xam te ne day laal famille bi wax nañ relation entre yaay ak doom démb lu ñu waxtaanee ma xool fàtte woo ko fàtte boo ko fàttee jóg plateau bi. ko fàttee jóg plateau bi. jóg plateau waaw boo keneen. Ah, mais donc que trop de choses à faire. trop de xam nga yow xam nga yoo bi naka la donc. xaw ma ko dama merci beaucoup Fatou <laughs> actualité bu tey mooy gis nañu ni Blaise Compaoré mooy l'ami d'enfance de Thomas Sankara euh, moo demandé pardon à la famille de Thomas Sankara et au peuple burkinabé. Euh, alors ma question en est que euh, est-ce qu'il n'est pas trop tard de demander pardon euh, à la famille de Thomas Sankara et au peuple burkinabé. ñaareel bi mooy waaw jaaree waaw léegi xaaral ñu ñu ñu kii la kay. ñu xuus ci question boobu par question bu ñu brouillé. ndax fii rek ñuy brouillé. voilà nga <laughs> ne est pas trop tard. maanaam Thomas Sankara bi. 35 eh, ans après waaw 35 ans ak. Euh, famille Thomas nga ne est pas trop tard ñu bàyyi madame euh, bi ci loxo moom mu wax lan mooy si avion en tant que sénégalaise en tant que africaine. <laughs> waaw en tant que en tant que sénégalaise comme tu dis dañuy suivre actualité comme tout le monde mais bon comme c'est des questions un peu politiques. Mhm. te ñun nous des personnes assez qui ne sont pas du tout. politique mm-hmm. mais bon dañuy interpeller ñun ñëpp mooy ni que faut pas bu la nguur jaral yenn yi comme on dit parce que tey ko waa complice bi ñëpp xam nañu la passé de Blaise et de Thomas fi ñu jaar yëpp depuis leur enfance mm-hmm. ñu nekkoon tamit des enfants de troupe demandoo armée et tout mm-hmm. tey est-ce que liñ koy jiiñ moo ko def wala defu ko en tout cas les juridictions ont tranché am na daan yoo xamante ni yoon teg na ko ko tey ndax daf ko war a purger wala est-ce que tey le fait de pardon dina dina jeexal loolu yëpp parce que il s'agit de crime ou bien même d'assassinat on peut dire parce que c'est pas un crime sax parce que assassinat la xam nga crime ak assassinat dafa am tuuti différence parce que ñun en droit tous les mots comptent voilà <laughs> assassinat mooy loo xamante ni da nga ko prémédité et tout mën nañ wax ni c'est pas un mais assassinat la woon est-ce que tey le fait de demander la famille dina régler loolu yëpp tey je pense sama avis personnel la ça nag loolu man rek la concerne mais tey est-ce que il ne serait pas mieux d'aller répondre aux juridictions comme dañ ko teg ay daan tey mu dem xool foofu ba xam parce que tey mën na demander pardon loolu day jeexal action peut-être action wala la famille même de Thomas mën nañ ko pardonner loolu action civile bi day jeex mais action pénale bi jeexul mi ni fi ba tey. voilà. comme les Français disent on peut pardonner mais on n'oubliera jamais. mais on n'oubliera jamais. doo fàtte. non doo boo nee ni doo ko fàtte alors deuxième deuxième deuxième cas yi mooy. Mhm. cas yi fii la xewee deuxième cas yi mooy. Mhm. Euh, si Thomas Sankara n'était pas assassiné, comme elle voilà, a si bien voilà. dit, buñ ko euh, reyul woon. Mhm. Euh, bàyyi ko à la tête du Burkina. Burkina parce que il dëkk Burkina la ñuy wax. ok est que Burkina du doon pays boo xamante ni lu am doole la pays la boo xamante ni dina bokk ci ñu gën a ñu gën a am ñu gën a développé fii ci ci ci ci àdduna. Mhm. Eh, parce que euh, leader Thomas Sankara gis nañ taxawaayam mhm. bañkat la woon. la a été toujours résistée contre les les les les les les occidentaux alors. Euh, bu ñu ko reyul woon sacrifice kii euh, politiquement politiquement des intérêts politiques voilà est-ce que kii Burkina Faso tey du doon pays boo xamante ni mun nañu leen conté yu gën a développé fii ci àdduna. ci Afrique ci Afrique waaw mais euh, comme sànq ni ñu doon waxtaanee ak avis bi ma jox parce que moom nee na selon analyse am. Mm-hmm. peut-être tey jii nii. on nous a toujours servi comme quoi l'Afrique y a rien de bon. on n'est pas bon mhm. amuñu dara mhm. alors que. alors que c'est des c'est des c'est des fausses news. waaw oh, on a on a des ressources voilà on a des ressources on a des on a des ressources yoo xamante ni. Mhm. bu ñu ko bu ñu ko jëfandikoo alhamdulilah mun na du ñu ñëwee benn pays. dëgg la du ñu ñëwee benn pays mais voilà comme les occidentaux euh, dañu jëpp africains yi. comme ñun voilà quoi nous sommes ah, nous sommes, <laughs> nous sommes des analphabètes nous sommes des analphabètes on du ñu xalaat donc voilà. li ñu wax rek ñu manipuler di ñu di ñu di ñu di ñu di ñu manipuler. voilà di jël suñuy richesse di jël waaw di ah. sàcc suñuy suñuy richesse di suñuy alal ah. ñu compter que ñun nous sommes des analphabètes voilà ñun du ñu xalaat. et eh, alors beaucoup d'Africains surtout les dirigeants mm-hmm. beaucoup d'entre eux mm-hmm. ñu ñu ñu ànd ak ñu bokk ci complot boobu ànd ak ñoom mm-hmm. di di souffrir c'est c'est c'est ça pays africain c'est c'est dommage malheureusement c'est dommage xam nga ah, comme on dit rek xam nga dañ Burkina Faso bañ nañ ko ba dañ ko woowee le pays des hommes intègres maanaam dëkk boo xamante ni ñu yàgg bañ la ñu yàgg nekkoon ci voie la mën nañu wax sax ba léegi sax malgré dañu am ay problèmes le climat politique n'est pas aussi bon que ni ñu ko bëggee mm-hmm. mais comme lu ñu wax pays des hommes intègres moom ku ko wax ku ne intégrité mm-hmm. xam ni intégration intégrité xam ni y'a quelque chose derrière mm-hmm. tey peut-être la personne de Thomas Sankara n'est plus là mais son esprit est là voilà léegi la moo ci solution mooy le fait juste que il faut qu'il y des hommes ñoo xamante ne dañuy continuer cette euh, politique cet esprit de Casamance et tout li mu bëggaloon Burkina pourquoi pas ñu continuer ko ces idéologies et tout développer ko parce que les hommes passent les institutions restent. Mm. parce que tey même si Bur euh, Thomas était là est que tey dina am après 35 ans dina am cet engouement qu'il avait et tout. Mm-hmm. donc voilà ah, aujourd'hui on peut ne peut mm-hmm. plus parler de cette personne de Thomas bien que moom c'est une icône foo xamante ni du mës dañ ci boppu nit yi. Mm-hmm. mais histoire am ba tey sa politique ba tey mën nañ ses idéologies, ses idéologies, voilà ce qu'il a eu à développer comme politicien et comme homme mm-hmm. de l'armée également. Mm-hmm. d'accord donc euh, ñuy fàttali leen yéen a ngi seen émission sunu yi tey ñuy waxtaanee luy euh, ñaan baat euh, maye baat ci wàllum donc yoon ñu gis na nag dafay di loo xamante ne ñu bëri dañ koy foowee ci biir couple bi te quand même lu am sérieux la. yàkkamte nga ñu ne divorce ba dugg ci causes et conséquences yi ba nga xas xale yu jigéen ñi mais tey dugguñu foofu tey voilà da ngay xas mais tey dugguñu foofu maanaam tey loi bi ci maanaam yoon naka nga mën a may nit ki baat kii ñaan baat aussi yan possibilité la mën a am pour dem demander divorce bi ñu accordel ko ko même bu fekkante ne ko góor ki bañ na wala tamit est-ce que ñu ne la rek fase naa la dafa war a tax nga jàpp ne divorcé nga sans pourtant xam naa yooyu yëpp dinañ ci xuus ci biir ci biir euh, waxtaan bi. Ah, ku ñuy fase loo jàppaat encore ban jàppaat moo fay am. ku la ne fase kay loo ci jàppaat ngeen naan ba nga jàpp ni fase fase nañu la moo gën a mën a fase naa léegi doo si jàpp loo fa jàppee wala boo fa toogee yaa toogal sa bopp de moo fa toogal bopp ku la ne fase naa sa bagage dem loo fay toogaat waaw mais mu ngi noonu nag ça doit pas se comme ça juridiquement léegi puisque madame Biti Loxo mi ngi fii de formation juriste comme ni mu ko waxee déjà ñu xam nga xamal donc askan bi nga xamante ne ñoom ñoo sakku thème bi mhm. lan mooy divorce voilà merci Fatou laaj nga laaj bu am solo parce que defe naa foog déjà sax comme sa. dijee sa dijee bi ni mu ko waxee foog déjà ñu campé euh, euh, kii bi ba pare émission bi ba pare parce que booy waxtaanee benn thème dafay baax ñi lay seetaan nga wax leen li ngay seet li ngay développé lan la. Mm-hmm. parce que ñu bëri dañuy jaaw dañuy jaawale ñaari affaire mooy divorce ak répudiation. Mm-hmm. moom defe naa répudiation lay wax parce que ñun ñëpp presque la majeure partie. Mm-hmm. de sénégalais wala un peu partout li ñuy jàpp mooy fase naa la wala may ma sa baat loolu tas na sëy man mhm. na mën na tas sëy ba si wàllu diina sax mën na tas sëy mais wàllu yoon dafa am nu mu tënkoo mhm. bala ñuy sori nag comme tu dis dama dama bëggoon ma présenté wu man maa ngi tudd la ko Faye di juriste de formation mhm. bokk ci benn kuréel ñuy xamante dañuy jàppale ñëpp lu seen xamal nit ñi seen àq ak seen yelleef voilà léegi nag lan mooy divorce comme ni nga ko waxee divorce suñ ko waxee mooy loo xamante ni day rupture de contrat la mhm. contrat moral xam nga mariage li ñuy wax dafa sacré mhm. te mariage patrimoine la institution la sax man nañ ko wax le mariage léegi nag bu rupture amee loolu la ñuy wax divorce mhm. malheureusement code de la famille définiru ko mais dafa wax lan mooy divorce mhm. mais tey bu ñu demee ci code civil français daf ñuy définiral divorce mhm. nee na divorce mooy maanaam rupture de contrat tey maag yow bu ñu doon sëy am na ñu doon ndax am sëy contrat la ñu ni noonu contrat moral lañu wax nekkul contrat boo xamante ni jënd ak jaay la wala danga may lii mais contrat moral tey bu ñu d'accord ni maag yow dañuy am relation da ba dañuy sëy ba ñu dem devant l'officier d'état civil mu acté loolu bind ko léegi bu ñu demee ba di ko ba loolu pour mu dañ foog ñu dem seeti juge pour mu tàqali ñu parce que këyit moom moo ñu boole. léegi nag la fait ma toog sama kër wala nga yow nga ma ñaan baat loolu répudiation la ñu ne lan mooy différence entre répudiation ak divorce. répudiation mooy comme ça nga toog ni nit ki fase naa la. wala mun la may ma sama baat. ngeen dem noonu rek demoo leen ci yoon dañuy jàpp ñun ci wàllu yoon ba tey sëy bi dafa am. ba tey tant que juge prononcé wul le divorce sëy baa nga fa léegi nag ça pose un peu problème parce que dañ naan la léeg-léeg surtout dañu naan la non ñun bi ñuy ñun amuñu woon certificat de mariage xam naa dinañ ci ñëw si biir waxtaan bi kon lan moo tax bu ñu waree tas ñu war a dem si yoon ndax yoon kayit la xam mhm. tey lan moo tax tey ñun bi ñuy takk imam bi moom moo takkoon sëy bi wala je ne sais pas curé bi wala à l'église wala mariage coutumier lañ def c'était à la maison et tout lan moo tax tey bu ñu waree tas foog ñu dem ci juge mais yoon moom moo moo ko wax mhm. depuis 1973 bi nga xamante ni dañu teg code de la famille dañ ni bépp mariage boo xamante ni moo xam dañ ko célébrer wala dañ ko constater bu xasee ba am ba pare bu ñaan ñi ñooy ay waay dencante lañ bis bu ñu demee bay tàqali ko juge moom mooy wax ni ñi ñaar ñi nekkatoo leen mhm. boo amul kayit dinaa si ñëw léegi dinaa procédure bi nga war a def pour am certificat de mariage mhm. pour mën a dem seeti juge mais nañ jàpp ni daal doore déjà que mariage tant que juge tasu ko tasul <laughs> tasul voilà diggéelu répudiation ah, nag mën na am mooy maanaam nga fase nit ki mu dem nga dem mm-hmm. léeg-léeg sax yéen comme vous êtes da di ñaa yéen ngi ci actualité et tout mm-hmm. yéen a ngi média ngeen yor peut-être da di dégg par yenn saay ngeen gis parce que am na ñoo xam ne dañuy dem ay vingt ans après mm-hmm. trente ans nga gis kenn ki toppaat ko comme li ñuy wax bu fekkee suñu jargon dañuy wax ni moo waa ji dafa soxor wala waa dafa doyalul ci sëy bi moo tax mu demaat ko topp alors que non non du question loolu ça peut être mën na nekk mais loolu c'est des cas mais li ñu mën a jàpp mooy waa ji s'il a un bon conseil s'il a été conseillé tant que juge bi tasul sëyam sëy beneen deuxième sëy bi valable léegi du coup soxna si mën nañ ko topp pour bigamie mhm. mën nañ ko topp pour bigamie comme ku góor ki bu fekkee ne da nekk ci ménage boo xamante ne tu es monogame mm-hmm. nga demoon sëy boobu tasul nga takkaat keneen mën na la topp également pour bigamie pour bigamie voilà c'est des nga xamante ni wala débat dinañ ci dinañ ci ko mayee dinañ ci développé bu baax dinañ ci développé euh, luy fas kanam yooyu non dafa dafa baax nag lu mu la jàngal dégg ko de divorce ak répudié fase naa la génnal sama kër la a parfaitement raison lu mu wax. ñi koy def dafa am solo trop non parce que léegi boo xoolee léegi ñuñ koy tubaab yi su ma nee tubaab yi yàqal nañu wala tubaab yi yàq nañ suñu aada ak suñu cosaan. yàq nañ suñu suñu diine. yu bari dañu naan dama dama dama dama ci mais. boo xoolee ba ci biir biir biir biir biir biir biir. takk takk takk sa jabar wala fase ko mhm. xam nga moom yàllaa ko wax mhm. takk dagan na fase dagan na mhm. ak ay anam mais ay eh, mairie papier mariage divorce et cetera boobu boobu boobu boobu euh, suñu mën naa ne sax comme lu mu wax ni yàgg na mhm. d' accord mais comme tubaab yi bu ñu duggee waaw tubaab yi bu ñu duggee si suñu mbir mhm. euh, jaxase suñu suñu suñu cosaan yi loolu <laughs> tax nga jaxase fase naa la rek nga génn non non balaa ñu ñëw ci fase bi sax ah. takk bi laa wax balaa ñu ñëw ci fase xam nga boo boo gisee fase rek xam nga neexul mhm. bu neexee moom c'est day continuer non na nekk xuloo waaw waaw baax waaw waaw baax na baax na xam nga ñu boo xoolee suñu aada ak suñu cosaan maanaam suñu maam yi fasewuñu noonu mm. fase naa rek nga dem noonu du ñu fase noonu mm. suñu maam bu ñuy fase dañu dañuy dañu dañu dañuy dañuy dañuy ànd ay seede maanaam dañu woo kilifa eh, son ndaw si mm-hmm. ñëw ñu toog ak moom waxtaan ak ndaw si mm-hmm. lu xew après ñu expliquer ko nañu waxtaan ak moom ci yar ak tegin mm-hmm. réconcilier mm. mais loolu amatul léegi un deux rek demal sa yoon ma dem sama yoon demal mairie bi bind certificat certificat de certificat de divorce nga jox nga dem sa yoon nga dem c'est-à-dire loolu laa ne moo tax ma ne la moo tax ma ne la moo tax ma ne la tubaab yi bu ñu duggee si suñu biir yàq uh-huh. suñu aada yàq suñuy ah, suñuy suñuy coosaan yàq suñuy suñuy lépp uh-huh. parce que léegi doo sëy demoo demoo demoo demoo demoo mairie même boo même boo amul papier de papier de mariage uh-huh. mais boo divorcé forcé di nga am papier de divorce. waaw mais pourquoi mais Didier léegi à la mosquée déjà pour ñëw euh, religieusement si li ngay wax. Mhm. même tey jii nii. Mhm. Euh, alxuraan dala naan boo fasee nit ki am ngeen période du idda bi ñuy naan donc euh, de trois mois. am na benn battement bu ñu lay may. Mhm, est-ce que tu pour d'autres raisons xam naa dañuy bàyyi beneen yoon ñu dugg ci ak oustaz. ci affaire diine bi. mais tamit tey jii nii même nu mu tuddati à la mosquée. ci jumaa ja xaw ma jàkka ja fa ñuy takkee sëy bi en tout cas religieusement mm-hmm. Mm-hmm. boo fa demee boo bu ñu takkee sëy bi ba pare am na kayit bu ñu lay jox léegi buy wone ne maye na leen la ci jàkk ji jour tel heure tel waaw mm-hmm. non pas ah, pas léegi man man man euh, kayit boobu li ñu ko bind si euh, arabe lañ ko bind wala français non dafay lekk rek kayit boobu ñu la jox français lañ ko bind wala arab mais français lañ koy bind waaw mais léegi tubaab yi ñu si ba léegi tubaab rek euh, ma la wax mooy ma départager lépp xam naa yéen yi ñu li ma leen bëggoon a départager rek mm. mooy dijee comme tu dis nee mariage bu njëkk ba mm. euh, bu fase daan am y avait des mois et tout dañuy mm-hmm. jàpp ni nag les sociétés ont évolué ah, loolu defe naa ni ñëpp nangu nañ ko mm-hmm. muy benn deuxièmement mooy tey peut-être euh, côté code de la famille la ñuy wax ndaxte divorce la ñuy wax mais bu ñu fàtte ni ñun fii ci Sénégal ñun législation française moom moo ñu jiite maanaam tubaab yi depuis bi ñu colonisé ba tey du question rek ci wàllu divorce ak ci mariage mais c'est partout mm-hmm. parce que ñun les français nous ont colonisé voilà léegi loolu la ba pare ñu imposé nag beneen bi nag euh, beneen bi tamit mooy comme ni nga wax ci wàllu divorce sax xam nga société yi bokkul bu njëkk ba peut-être mën nañu wax ni sax peut-être dinañ ci ñëw y avait moins de divorce parce que lan xam nga mariage dañ ko doon encadré y avait mhm. la famille derrière mhm. voilà les oncles tantes yi bàjjen yi ñëpp ñi ngi woon ci gannaaw léegi même bu amee problème duñ ni divorce du am mais bala moo am fekk na ñooñu joué nañ le rôle de médiateur nekk nañ ci gannaaw def liggéey bu am solo boo xamante ni doon nañ ko joué ba divorce bàyyi ma ma yeggali léegi peut-être mën nañu wax ne looloo tax y'avait moins de divorce mais tey li ma la wax léegi les sociétés on évolué instant bii nii li muy wax Fatou elle te dit que boo demee si jàkka bi dañ lay buñ la mayee sax jàkka bi dañ lay jox këyit këyit boobu xam nga mariage religieux dafa valable xam nga tey sama début waxtaan

mosquée parce que peut-être t'as dépassé les délais voilà parce que yoon dafa am tam lu mu tënk ba tey parce que tout est lépp dañ ko teg ci ci yoon <laughs> comme on dit le droit est bien structuré amul loo xamante ni c'est de façon très hasardeuse nii tey dañ ne bu fekkee ni dañ la marié tey à partir de ce jour tey le mercredi buñ la mayee yoon may na la tey ba 6 mois mhm. pour nga dem def sa jugement de mariage mhm. maanaam nga dem mairie bi nga déclarer sa mariage nga def li ñuy wax un mariage constaté wala nga dem mairie direct def un mariage célébré léegi nag bu 6 mois yooyu passé génn nga ci délai bi soo génnee ci dele bi nag da ngay dem defi da dem buti un jugement au niveau du tribunal moo waral léeg-léeg nit ki dina sëy parce que ay 40 ans ay 30 ans borom këram génn addina ñu war a passer à la succession tey nga dégg ñu ni la tant que kayit pour wane ni kii sa borom kër la doo bokk ci succession bi voilà c'est des choses léegi su ko defee nga naan man kii mhm. presque 40 ans maa ngi sa ak moom et tout mhm. lan moo tax tey ñu bëgg ma beddi ci wala moo tax ñuy wax l'importance su këyit tey peut-être thème bi divorce la mais bu ñu ko mayee beneen thème bu ñu ñëwaatoon ci état civil mhm. dinaa la wax ni importance su këyit que ça soit le certificat de mariage muy extrait de naissance wala certificat de divorce këyit dafa am important parce être tey mën nga ko banaliser nga ni tubaab bi moo ñu lii pourquoi aller chercher mais tu da xam ne c'est une protection mm-hmm. tey moom moo lay protéger tey ci société bi mm-hmm. dina la permettre en tant que marie nga am yenn avantage yi mm-hmm. yoo xamante ni peut-être état bi moo la koy bénéficier dina la tax tamit nga am benn protection yow ci sa wàllu bopp ban genre protection la tey mooy ni que tey kenn mënul joge fële on peut pas te dire que yow da nga am da nga def bigamie wala genre yu noonu tey bu fekkee yaa ngi sa certificat de mariage dina la permettre tey lan laa ko mën a waxee tey manoo jóg ni kii yow mënoo jóg tey nga ni man sa soxna laa nii nii nii rek te andiwoo luy firndeel ni man sa soxla naa sa soxla sa jabar laa man tamit pareil mënuma ñëw ni dijjee mi mooy sama borom kër te andiwuma këyit bu yoone ni mooy sama borom kër mm. loolu dina dinañu permettre dinañu éviter leen parfois da ngay gis kenn dana am doom feneen nga xam nekkul ci buumu sëy bëgg ko takkal kenn parce que yoon tam dafa am nu mu tëddee mais yooyu yeneen thème la bëgguma ci def extrapolé voilà mm-hmm. loolu ay refus de <laughs> tey nit am doom si biir couple jëkkër ji ni ko juruma doom bi mais su àndee këyit bi da lay permettre mu reconnaître doom bi parce que papaam la certificat de mariage dafa am importance kon bu ñu ko rek ni mm-hmm. lu tax ñu dem wuta war a wuyit bi lu tax ñu war dem wuta andil sa certificat de mariage parce que dina la permettre nga mën a jot yenn pension yi yenn mm. avantage yi soo amee doom nga ñëwaat ñu def ko si livret de famille bi mm-hmm. da lay permettre yenn yi tey da nga gis ni célibataire bi mm-hmm. li muy am ak marié bi bokkul parce que certificat de mariage boobu moo ko may mm-hmm. nekkul ne dafa gradé wala dafa dafa rafet wala genre dafa ñaaw mais certificat de mariage moom mu lay différencier sa wàllu liggéey sa wàllu société surtout ba sa comportement parfois dañu koy wax quand tu es marié tu n'oses pas porter certains tenues par respect parce que da nga am beneen image booy joxe moom rek la mais si wàllu yoon moom lu jàpp leen ni certificat de mariage dafa am importance tey mënoo dem ni da ngay divorcé te andi woo kayit ñun suñu wàllu liggéey ñu bëri dañuy ñëw di tey dañu dañ comme tu dañ leen dañ leen fase ñu dem seen kër ñu tourné waat topp leen pour abandon de domicile là ils n'ont elles n'ont pas compris wala ils sax parce que parfois y des hommes ñoo xam dañ leen di accuser de famille ñu ni lan moo tax parce que man amu woon kayit ba pare mu ni man dama def abandon ñu expliqué leen que li nga def abandon la parce que da nga quitté te juge bi autorisé wu la pour nga quitté mhm. benn deuxièmement fekk ñoom duñu am këyit mhm. ñu ni pourquoi pas wàllu yoon si dugg parce que man aw ma woon kayit mhm. léegi c'est toute une procédure là tu es là pour pour benn procédure de divorce moo la fi andi imaginez dañuy régler problème état civil ba pare te loolu ça peut prendre du temps maanaam dinañ la defal nga dem def un jugement tardif de mariage ba pare di jënti sa certificat de mariage ba pare boo ko amee ngay soog ñëwaat ñu dugg si procédure de divorce mhm. bu fekkee répudiation la là on va régulariser la situation mhm. dañuy wax juge bi ne dañu fase mhm. léegi dañu bëggoon juge bi mu régulariser la situation juge bi da ciy attu d'accord ma question en écho ma question voilà léegi ah. euh, boo amul certificat de mariage par exemple euh, nga divorcé am euh, li amoo certificat de divorce quelles quelles seront les conséquences par exemple waaw boo amul certificat de mariage moom laa la doon wax léegi mm-hmm. il faut nga am première bi ba pare mooy dangay ngay wax li ñuy wax jugement tardif de mariage mm-hmm. déclaration tardive de mariage ngay def loolu c'est une procédure mm-hmm. dangay dem jël soit sa kayitu jàkka bi ngay dem jël dem au niveau de la mairie wut sa témoin ak sa photocopie légalisée d'identité ak sa bosu borom kër nga dem ñu wutal ñu jox la wax un de non inscription à la mairie. buñ la ko joxee nga boole ko benn demande booy bind wax juge bi ni. da amoo woon de mariage. jaru nga ko expliquer da mariage kayitu jàkk rek nga jotoon am wala jotoo ci woon am benn. Mhm. boo ko bindee euh, au niveau du tribunal bu ñu la convoqué pour le jugement jugement boobu bu génnee mun nga yóbbaat au niveau de la mairie. ki nga amoo non inscription bi. soog a am certificat mariage mais soo ko gisoon da gis parfois dañ ciy jugement numéro parce que lan ñooñu dañu passé délai bi moo tax jugement lañ jotee seen certificat de mariage mhm. léegi nag à partir de ce certificat de mariage là nga mën a introduire une demande de divorce parce que c'est deux choses différentes mhm. wut certificat de mariage ça n'a rien à ak la procédure de divorce voilà léegi boo mhm. leen si bëggee comme le temps nous est un peu compté on aller vite conséquence mo je pense que ñëpp koy toll mais droit dafa am loo xam ne daf ko tënk d' abord wax na lan mooy yan mooy forme de divorce bëggoon naa ñu développé dinañ ci développé wax lan mooy dama mu tàggoo Euh, su ko defee euh, donc la oreille bi aussi voilà instant yi moom li ko intéressé moom xam nga kii dafa sikk dafay bëgg a xam ndax bu nee jabaram génn rek day war a génn loolu sax parce que xam nga génération bi nii Fatou euh, ngeen baal ma hmm. mais mais mais da nga siy dugal sa bopp da nga naan suñu génération suñu génération waaw suñu génération bi baal ma nag mais mairie nag dañ dinañ dinañ defar papier ba dof dinañ hmm. defar papier yu bari parce que. divorce di di day a sikk yéen góor ñi tàggoo daaw parce que suñu génération bi ak ak ak bu demb bokkul. jamono jamono suñu maam duñ c'est-à-dire tey tey xale yu góor yi xale jigéen yi déggu dëggul déggul tuñu parents yi. man mun naa tànn sama mun naa mun naa dem dox tànn sama jabar indi ko sama kër xaw ma lu mel xaw ma lu xaw ma lu ban jikko la yor ma indi ko sama kër deux deux trois deux mois de mariage quatre mois de mariage ñu dugg ay papier divorce ay kenn xamul hmm. yow war ngaa mën a tànn jabar joo xam mais jigéen la même chose dama lay laaj yow yow keroog yow nit ki nga xamante ne da nga xanaa xanaa da ngaa toog jékki-jékki dem takk ko fi keroog fi fi nga naan 300 xaw ma par jour divorce par jour 300 waaw mais lu ko indi mais c'est ça le problème lu ko indi mais problème bi foofu la nouvelle génération bii nii nii nii mooy góor mooy jigéen kenn sëyutul jigéen yi du ñu sëy góor yi duñu duñu xam ni am naa jabar dañu def lu leen neex jigéen yi def lu leen neex moo tax sëy di bëri sëy di bëri mais c'est ça la problème dugulutuñu suñu pare dugulutuñu suñu kilifa yi. di jélu ay waay di jélu tàggool takk rek ñëw xaw xamoo kan ngay takk. Eh. si indi ko sa kër xamoo ban jikko la yor et cetera mun na am fukki fukki jikko. Eh. mu indi la juróom rek bi si dama mu indi la cinq juróom rek nga ne ko yow xamee yow xameetuma la ak jikko bi jëndal sama kër. waaw mu fi bëri ñaari trois na ko ñu daan sëy mun nañ ay sëy bi mun na duré duñu am benn problème bu ñu amee problème sax Eh, eh, eh, jarbaat yi ak bajan yi ñoo ñëw arrangé fat fat mu jeex après ñu continuer seen sëy léegi loolu amatul. cinq ans de mariage trois ans de mariage asafurla sept sept mois de mariage un an de mariage divorce am na trois cent quelque par jour te dina bari non c'est ça c'est ça la réalité. léegi euh, comme à chaque fois que ñuy wax euh, li nga xamante ne moom moo jëm ci a di jëlu waaye nee naa la tàggul doo tàggoo donc euh, man. maa ko fas na dem je pense que yombewul noonu madame euh, Biti Loxo Faye bi euh, nga xamante te ne moo fi toogal donc lépp lu jëm ci wàllu ma euh, yoon mu expliquer ko ñi nga xamante ne quand ñoom ñoo ko demandé woon mhm. moom dina dinañu gindi mais balaa loolu la oreille lu xew ba nga laxas baat bi lan non moo tax dama xaw jël tuuti nga mën ngaa nga sonn Euh, yow dëkk bi ni mu demee nii. ah mooy wax tamit <laughs> nañ waxtaan rek. Euh, xam nga ni réew mi moom boo fi jógee chaque jour rek. va et yi ak ni dëkk bi jaxasoo wee nii. ah faaw nga am tuuti xam nga rek. yaram a kala ji non tey nag daanu moom mais daanu keroog bi moo ma jàpp nag ba léegi nii. <laughs> <laughs> kon maa si coono bàyyi la ngeen nuyu. maa ngi nuyu suñu mbokku téléspectateur suñu Label TV gisoo ni ma jeexee nii moo lay war ne dama sonn daanu ba jàpp ba léegi. ñu ngi leen di ziar di leen joxaat seen wàcc wàccuwaay bu baax euh, di amaat mbégte rek ak contentement jàkkaarloo waat ak yéen fii seen euh, chaîne euh, suñu Label TV euh, ci suñu émission suñu kaay yi kaay bu ñu indi tey moom cas bu la cas bu diis mi ngi nii <laughs> lu bari lool fréquent ci société sénégalaise bi ñu boobu ba léegi moom aussi mi ci wax lu rafet suñu jury bi. madame Faye madame ñu ngi lay ñaanal yàlla defal la jàmm yàggal taxawaay bi ndax nag soxla nañ ñu mel ni ci société bi. Mm-hmm. ndax réew mi léegi dafa dëng. ñu jubbanti rek. ñu jubbanti de <laughs> yàlla ah. baax na voilà ñu fàttali leen ne rek euh, sunu Label TV donc jàll na ci parti claire wu TNT bi et que mun ngeen di ñu seetaan euh, tous les matins en tout cas 24 heures sur 24 ci canal 27 euh, bi. Mhm. voilà donc ñu xuus ci li nga xamante ne mooy maye baat ñaan baat ci wàllum yoon bi Biti Loxo dafay baax aussi nga nga nga leeralal ñu. Mhm. ci yan condition la ku jigéen ki mën a nekk wala ku góor ki ba war a mën a dem tey mais. damay ñaan baat damay mooy cause cause yi valable pour yow nga mën a jóg ne maa ngi dem ñaani baat. voilà merci Fatou question bu important tamit comme yeneen question yi. xam na yoon moom dafa comme ni ma la ko waxee léegi lépp daf ko structuré mhm. tey mën nañ wax ni comme genre sa dijë bi fi jógee léegi ni mu ko doon ni mu ko jàppee nee na 4 mois 5 mois sëy bi dañ etu mhm. mais yoon doxewul noonu mhm. yoon dafa bi ñu nee cause de divorce dafa am lu ñu teg mu ni lii mooy les causes de divorce ñu nekk au nombre de 10 ñu ni ko yan la mu ni incompatibilité d'humeur maanaam fekkee ñun ñaar na déggootuñu ci kàddu mm-hmm. nga nekk ci situation yooyu mm-hmm. man nga demander le divorce wala bu fekkee ne dañ la répudier li ma doon wax léegi la répudiation fekkee dañ la fase mm-hmm. loolu tamit mën nga ci demander divorce la baatu fase naa la parce que ñun ci wàllu yoon répudiation injure lañ ko jàppee injure voilà maanaam may ma baat wala fase naa la injure lañ ko jàppee boo ci nekkee wala li ñuy wax infidélité wala adultère mm-hmm. maanaam tey nga am borom kër ba pare dem di nekk ak keneen mm-hmm. wala yow nga am soxna xam ni polygame nga wala monogam mm-hmm. ba pare dem di nekk ak ñeneen ba ñu jàpp la pour infidélité wala adultère ñu bett la et tout mel noonu avec des preuves boo ko amee mën nga ci mën ci ñaan baat wala ku jigéen ki def li ñuy wax abandon de domicile abandon de domicile mooy lan mooy tey nga jël say bagage dem sa yoon te juge autorisé wu la pour nga quitter. Mhm. wala loolu mooy abandon domicile. loolu boo ko defee mhm. sa borom kër bu fekkee dafa constaté loolu mën na la ci fase yoon mën na ci tranché. Mhm. ñu jéggalaale la sëy bi. wala ku góor ki def abandon de famille parce que ñu bari dañuy wax ni dañuy jaawale jigéen mooy def abandon de domicile góor abandon de famille lay def. d'accord maanaam nga bàyyi sa njaboot au delà de deux mois leen toppatoo woo leen. ak sa soxna. te mm, ne yaa ngi fi mais ñëwoo seetwoo leen xaw ma xamoo xamoo ci lu ñu nekk nga dem waxuñu nag ku voyagé wala ku liggéey ku abandonné la famille la ñu wax mm-hmm. fekkee ku góor ki yoon dafa am lu mu ci wax article 350 351 am na lu mu ci tënk si code pénal boo ko xoolee mm-hmm. am na lu mu ci wax si ku def abandon de famille mm-hmm. wala nga def absence absence en droit bokkut ak absence comme ça si wàllu français parce que absence tey bu nee yi dafa absent mooy ku ñëwul mais ci wàllu yoon bu nee absent mooy koo xamante ni toog na presque diiru 4 ans kenn gisu ko kenn xamul ci lu mu nekk waxuñu ko voyagé ba tey mais koo xamante ni xamul ci lu mu nekk mën nga dem euh, jege juge bi expliquer la situation mën na dindi sëy bi effectivement voilà defe mhm. naa wax na ak tamit euh, les violences conjugales wala les violences tout court que ça soit violence physique mhm. violence sexuelle maanaam ngay tey ngay sàkk sa soxna te àndu ci wala sa borom kër soxla la nga bañ yooyu buñ ko mhm. fàtte violence yooyu sous toutes ses formes que ça soit sexuelle économique maanaam tey nga bañ a joxe dépense te war ko mën a joxe et tout parce que am na ñoo xamante ni tey euh, cause de divorce yi gën a bëri ñi ngi naan bëri na mais à part bu dindee incompatibilité d'humeur tey cause de divorce li ko gën a bëri tey li tax fréquence divorce yi di am une ascendance di mën na nañ wax ni Euh, non euh, défaut d' entretien la maanaam ñàkk a toppatoo voilà te défaut d' entretien dafa bokk ci cause divorce mhm. parce que ñu bëri tey ñu ngi jooy li ñuy jooy bu ñu seetsee même bu ñu demee ci cabinet yi wala devant le juge li ñuy wax sama borom kër toppatootu ma joxeetul dépense yu mel noonu la gën a évoqué mhm. voilà muy violence économique wala violence physique maanaam ay dóor la oreille yooyu la ñuy jooy voilà ay violence euh, <laughs> physique wala violence psychologique ni moo gën a dangereux maanaam ngay wax nit ki tey xam nga jigéen bu xasee ba am doom amaat doom morphologie am changé waaw a certains hommes nag duñu supporter loolu et tout dañuy commencer di la violenter psychologiquement genre bu fekkee man sama genre yi xam ne pata bu jongo ma laa da nga naan ma da nga pata et tout. sa pata waaye de sa nangam moom naan wala gis nga ni nga jeexee sa kanam gi ni mu mel. loolu ah, psychologiquement yaa ngi violenter nit ki yooyu c'est des de <laughs> violence yi nga xamante ni wala gu dem ba tëlee mënoon te mënatul parce que yooyu tamit ba tey cause de divorce li ñuy wax maladie yooyu bu ko waay dencante bu ko ci kenn amee mm-hmm. yoon neewul kenn tey da nga toog ci sëy bi par la force keneen ki partenaire am soit moom mooy tawal compréhension toog wala mu dem wala tamit li ñuy wax mooy gore daal ah, gore toog wala li ñuy wax une peine infamante peine infamante ñu tëj la li ñuy wax une peine infamante maanaam ñu tëj la yenn pen yi bu la tëjee yenn peine yi l' autre conjoint wala conjointe n'est pas obligé de rester dans le ménage moom lay neex mu toog wala neex ko mu dem muñ la foofu daal muñ la ak gore rek voilà loolu la <laughs> yoon yoon yooyu la wax ni yii mooy cause de divorce léegi nag am na ñoo xamante ni dañuy parfois dañuy andil yenn yoo xamante ni c'est pas des causes de divorce mm-hmm. parfois bon par exemple lan laa leen mën a jox tey mën nga nekk ménage polygame sa borom kër takkal la wujju nga ñëw ni da ngay génn ci sëy parce que dañ la takkal wujju mm-hmm. déjà takkal wujju loolu du cause de divorce mm-hmm. mais bu fekkante ne da ngeen signé monogamie. waaw boo signé monogamie loolu beneen affaire la violation ah. d'option la loolu. d'accord xam nga boo signé yoon mayatu la pour nga nekk polygame. mais le contraire peut se faire mën nga jógee polygame dem monogamie. mais loolu boo ko defee violation d'option la. ba tey juge bi tamit mën na si teg ay daan. mais na ñoo xamante ni dañuy nekk si ménage polygame exemple lay joxe. comme ça tey nga nekk si ménage polygame les engagements pris lors de la célébration du mariage moom mooy lan tey boo may takk man comme ça nga ma ni la man boo ma takkee bu ma ñëwee sa kër dinaa fóotal sa yaay dinaa paaseel yooyu sax c'est péjoratif c'est terre à mais comme ça nga jox la engagement daal lii dinaa ko def fekk du ma ko def après mariage bi mhm. wala ku góor ki bu ma takkee comme sa technicien bi gis na mi ngi mooy xool bu ma takkee te mun ma tey bu ma la takkee mhm. dinaa la tabaxal ay étage wala doo sëy sunu kër mhm. famille digee daal loolu cause de divorce la te loolu xam nga dafa bëri. voilà suñu mm-hmm. gisee moo quand on wala ñu ni ma dama leen di kii quand aussi plus euh, le plus souvent avec nos célébrités parfois on a toujours euh, ces de problèmes mm-hmm. non respect des engagements pris lors de la célébration du mariage parce que am na ñoo xamante ni bon lii la xool la paraître dugg ci yow et alors que y a mm-hmm. une personne derrière voilà derrière bien mm-hmm. cachée et tout une nga découvrir ko dootoo amati surtout surtout loolu ngay wax noonu réalité bi nga xamante ne moom moo caché wu ci ginnaaw nit ki dafa am solo mais sëyeet dem sa yoon jamono bi moo ëpp nit ñi léegi doo sëyeet maanaam euh, faseetuñu ci euh, loo xamante ne mm-hmm. loi daf ko santaane mm-hmm. parce que nag am na lu diine wax xam naa comme li mu ci wax sànq loolu oustaz dina ci ñëw mais am na loo xamante ne këyit la mm-hmm. yaa ngi dégg am ñoo xamante ne jamono ji ñoom toppatuñu loolu donc nag problème aussi tam côté noonu dafa am trop sax parce que euh, da ngay gis comme li nga wax sànq ku jigéen ki mhm. euh, ku góor ki da koy topp da ko duma la may baat par force euh, mhm. buum bi ci mën la nekk mhm. loolu yoon naka la ko war a naka la koy tasee ci kayit ku jigéen ki nan lay def ba sëy boobu tas parce que ñi ciy xoqatal dafa bëri waaw loolu moom je pense que leeraloon naa tuuti mais comme comme ma ñëwaat ci rek xam nga répudiation moom li nga wax répudiation bëri na mais répudiation tasul sëy loolu moom duñ di ko fàttali askan bi tout le temps. Mm. que répudiation tasul sëy beneen bi tamit mooy comme li nga wax. nekkul ni góor moom mooy maye baat. wala mm-hmm. tey tey ku góor gi mën na la wax fase naa la nga wax naa la ko sànq tant que juge bi tasul sëy bi sëy bi dañul. Mm-hmm. Mm-hmm. parfois da ngay gis ku ñëw wax ñëw situation bi muy dund et tout. mu ni mais sama boroom kër nee na. du ma libéré mais dañ koy xamal ni même tey bu la libéré sax loolu tasul sëy bi. sëy tant juge tasu ko. bi tasul. mooy maanaam yoon moom mooy tas sëy. il faut ngeen dem ci yoon il faut dem ci yoon. Mhm. tey mën nga ma wax ni may naa la sa baat ma dem nga dem ñu sëy pendant vingt ans trente ans nga xëy suba dégg ma amaat beneen borom kër nga toppam bu la neexee nga topp ma pour bigamie. Mhm. waaw loolu noonu ñooñu am na ñoo xamante ne dañ cee taxaw carrément. Mhm. mu nga ko mën a may baat yaa ngi dégg. mais da nga taxaw foofu carrément doo ko may baat. waaw léegi loolu nag boo amee xam nga comme li ma la wax léegi cité naa la fii léegi les causes de divorce. bien que divorce su kenn santaane wu ko diine santaane ko yoon it santaane yoon dafa wax ni boo nekkee ci situation yi mais gisagoo benn amaguñu ñun benn cas boo xamante ni juge bi moo déplacé wu dem ci kër kenn comme par exemple su ma nekkee je suis juriste ma nekk parent euh, voisin voisine ak euh, Fatou c'est pas parce que Fatou dafay subir ay violence peut-être mën naa dem defi une dénonciation def main courante def une dénonciation au niveau de la police wala de la que elle subit des violences mais tey yoon ma yow ma maanaam juge du fekk kenn ci situation ni ko yaay xool sa situation ndax tey ça te va wala nga dem demander voilà parce que tamit y' a y' a pas que le divorce loolu tam bëggoon naa ko ñu leeral ko c' est parce que boo nekkee ci ménage di dem nekk ci yenn situation yi rek mm-hmm. benn option nga am mooy demander le divorce. Mm-hmm. déjà am nga li ñuy wax demande d' intervention. Mm-hmm. demande d' mooy lan. comme ça nga nekk ci yenn situation yi sa jëkkër di la dóor wala yu mel noonu wala incompatibilité d'humeur déggootoo leen ci kàddu neexootoo leen man nga dem wax juge bi nga ñaan juge bi pour mu intervenir par rapport ak sa situation loolu ça n'a rien à voir ak divorce amatuñu temps de léegi ñëpp dañ la naan damay tas waaw mais man nga ñëw pour tas xam nga mën nga ñëw pour tas mais nekkul tam juge bi comme ça dafa toog moom yàkkamti comme ça boo ñëwee rek moo ubbi kaye pour ni la voilà divorce ngeen mhm. de divorce boo d'ailleurs mm. ñëwaguma sax si les deux formes de divorce defe naa mm. dinañ ci wax comme ça mm. ni ñu xamaale ko benn yoon dans toutes les formes de divorce soo ñëwee juge bi li muy njëkk def mooy li ñuy wax la conciliation mooy jéem leen juboole ba pare jéem leen fàttali fàttali yéen ñaar ñëpp la sacralité du mariage ma leen ko wax sànq mariage dafa sacré dafa sacré te divorce day diddi sacralité boobu loo xamante ni tey peut-être bu ñëwee ci conséquence yi di ngeen xam lam lam moo tax divorce sax nit ñi dañ ko war a daw. Mm-hmm. lu bëree bari parce que y a des conséquences et des conséquences qui sont derrière. Mm-hmm. tey peut-être dinañ ko def nii de façon très banale nit ñaa ngi koy banaliser je ne pas tey. jël ko à la mais foog ñu xam ni mm-hmm. y a des sur le plan social et tout y a yi nga xamante ni tey est-ce que tey tu vas te dire est-ce que il ne serait pas mieux de rester dans ce ménage parce que y pas une vie rose mm-hmm. fenn neexul comme on dit ñëpp ñu ngi si biir ay problèmes et mm-hmm. mais c'est pas parce que da nga nekk rek yenn situation yi voilà que da nga ciy génn voilà mais boobu sama ni dama waxoon ne am na wax demande d'intervention beneen bi tamit am nga possibilité bu fekkee ne wàllu économie moom mooy sa problème maanaam défaut d'entretien bu fekkee yow sa seul problème mooy sa borom kër du la toppatoo wala du toppatoo njaboot bi wala bu feebaree du leen faj côté économie daal loolu am nga possibilité def li ñuy wax contribution au salaire du ménage maanaam da ngay bind juge bi nga ne ko man kat sama borom kër du ma toppatoo di joxe dépense wala xale yi duñ feebaree du leen faj seen jàng du leen faj du leen waaw mën nga bind loolu jox ko bi juge bi woo ko góor ki mu wax ko ni comme sëñ bi comme yaa ngi liggéey wala comme yaa ngi def nii soxna dañ koy toppatoo njaboot dañ koy toppatoo loolu kon xam nga ñaari procédure yooyu éviter na la ay procédure de divorce maanaam juge mën na nekk aussi conseiller c'est son c'est familial la wax d'accord voilà quand on familial nag nekkul ki nga xamante ni juge pénal juge pénal mooy koo xamante ni dafa nekk fële pour waa droit pénal comme ça boo sàccee wala boo liggéey voilà boo defee mhm. lii juge familial la moom li ko war mooy mu xamante ni dina ko def pour couple bi delluwaat si yoon dina ko def am jàmm ci biir waaw am jàmm si biir dina ko def léegi nag forme de divorce yi deux la dafa am li ñuy wax un divorce à l'amiable mhm. wala consentement mutuel mhm. maanaam tey man nag sama borom kër bu fekkee gis na ni mënatuñoo dem mënatuñoo nekk sëy bi ñu mhm. décider de commun accord que dañuy génn ci sëy bi boobaa dañuy bind li ñuy wax une requête une requête forme de lettre la rek ñu wax juge bi ni ñun ñaar kat mën ak monsieur X ñoo décider ñun ñaar de commun accord dañu bëgg a ci sëy bi d'accord mu signé si man tam ma signé si. jarul may expliquer juge bi dine ko. dañuy xeex wala dañuy xuloo wala dañuy lii voilà boobu duñu expliquer juge bi ñu boole ci suñu certificat de mariage moyen de trois mois li may wax léegi euh, importance sa dijee waroon na ko fekkee importance su papier. mu mu lay dégg parce que <laughs> entamé procédure de divorce te andiwoo kayit bi wane ni yéen ñaar da sëy boole ci certificat de mariage moins de trois mois mm. bu fekkee da am njaboot seen extrait de naissance moins de trois mois nga dem déposé juge bi loolu mooy divorce à l'amiable wala consentement mutuel maanaam yéen ñaar yéen a de commun accord voilà si jàmm salaam bi mm-hmm. comme quoi tamit foog nit ñi xam ne divorce waxta mën a nekk mën na bañ a nekk xiiroo ka ngaayoo ngaayoo voilà divorce à l'amiable voilà loolu mën na nekk kenn bañ tout le contraire aussi peut exister xale yi am nañ ci part de responsabilité côté boobu noonu xale yi yow am nañ ci wàll daal maanaam nga xalaat mhm. beneen forme de divorce mooy li divorce par contentieux mhm. contentieux mooy lan maanaam cause yi ma fi évoqué léegi mhm. nga cité ci moo xam benn la wala ñaar wala ñett ni cause yi dama nekk ci situation moo tax ma bëgg a demander divorce parce que tey comme sànq yaa ngi koy wax nee nga da ngay nekk ci yenn situation yi ku góor ki du moom moo la war a téye mhm. bien que moom moo yore baat bi comme ah <laughs> si si kii mais si wàllu <laughs> yoon voilà yoon comme ni mu tëddee mhm. moom tey bu fekkee da nga nekk si yenn situation yi mhm. yoon may na la nga dem saisir le juge juste boppam mooy dindi sëy bi loolu la ñuy wax ah, divorce par contentieux loolu laa bëggoon sànq nga leeral ko léegi nag divorce par contentieux dañ koy téye nag du ma dem mujj parfois da dégg ñu ni la divorce euh, man tribunal ay yéeg ak wàcc la wala waa ji dafa am bras long wala ko jigéen ki dafa am connaissance non non tribunal tëddeewul noonu nekkul ne ay connaissance bien vrai que du ñàkk peut-être mais divorce tëddeewul noonu li tax ay yéeg ak wàcc am mooy tey bu ñu defee li ñuy wax une requête initiale maanaam li ñuy njëkk a bind pour wax juge bi dañu bëgg a divorcer mhm. boo ko bindee ba pare nekkul ni man damay ñëw rek man Bété Loxo Faye maa bind ne dama bëgg a divorcer et ma ñëw rek juge bi convoqué sama borom kër ni ko waaw kii nee na danga koy dóor danga koy saaga doo joxe dépense et tout tu n'es pas léegi damay dindi sëy bi. Mm. bu ñu passé la période de conciliation ba pare. juge bi bu leen convoqué waatee xam nga nu muy def day jël copie. Mm. maanaam man li ma bindoon andi ni lii moo tax ma bëgg a tas. Mm. da koy jël copie jox ko sa borom kër. Mm-hmm. ni ko sa sa soxna lii la fi andi wala mu ne la sa borom kër lii la fi andi pour dafa bëgg a génn ci sëy bi léegi yow demal nga tontu ci par rapport ak loolu loolu la ñuy wax une réplique te loolu ay audience nga audience dañuy dañuy xaw a sorianto voilà tey ñu ngi si mois de juillet mën na yox sa beneen audience mën na nekk août wala septembre nga def une réplique par rapport ak loolu maanaam nga tontu par rapport ak li sa soxna bind tey sa soxna mën na bind ni yow doo ko toppatoo da ngay joxe doo joxe dépense doo joxe lii yow nga tontu nga weddi loolu yëpp mm-hmm. boo ñëwaatee tamit nekku ni da ngay ñëw weddi rek juge bi ni voilà gis nga bétti li ñu fi bindoon gis nga sa jëkkër li mu weddi <laughs> léegi kon yéen ñaar damay tas sëy da koy damay joxaat man possibilité ma tontuwaat par rapport ak loolu mm-hmm. léegi de ça la jëlal sax une année voire plus mm-hmm. ndax di tontante mais juge bi nag du leen bàyyi ngeen di nekk foofu di tontante jëmale ilaa yow mi diin bu gisee ni il a assez d'éléments pour tas sëy bi si lay basé wu pour tas sëy bi exemple def ngeen procédure bi convoqué nañ leen et tout léegi juge bi nee na euh, prononcé na ko ne divorcé ngeen est-ce que à partir de ce moment là mooy balaa ngay jot këyit officiel bi yow mun nga considérer ne divorcé nga et que bo bu amoon keneen ku la ku la takk du doon bigamie non pas à partir de ce moment te bi nga xamante ni. dañuy laaj waaw dañuy laaj noonu à part c'est pas à partir de sa moment te mën nañ wax ni. juste prononcé divorce rek divorce am na. Hmm. mais yow ku jigéen ki da nga war a eh, jël sa période de viduité. Eh. maanaam sa idda. da ko war toog ba pare ñuy wax ni de. trois cent jours xam nga trois cent soixante jours mais da nga ko war a toog ba pare. Mm-hmm. loolu ah. moom diine wax loolu la wax. kii mm-hmm. tamit yoon tamit loolu la wax. sa idda bi sa idda bi foog nga mm-hmm. bàyyi mu jàll. loolu ba pare ngay soog a mën a entamer beneen relation. léegi tamit juge bi bu prononcé le divorce. bu fekkee xam nga bu fekkee consentement mutuel la nekk bu ko juge bi bu nee yéen ñaar kon parce que juge bi boobaa day constaté rek divorce bi. kon jaratul kenn di bu fekkee am ngeen ay doom waxtaan ngeen déjà parce que consentement foog ngeen d'accord kan mooy téye xale waxtaan tamit ci pension bi naka lay demee mm. parce que doo leen dem ba foofu kii nii man dama bëgg a def consentement mm. borom kër gi ni non man décidé wu ma ko yow yaa ko décidé mm. loolu du consentement consentement d'accord consentement mooy décidé ngeen kan moo yore xale yi décidé ngeen pension bi nu muy demee mm-hmm. bu fekkee contentieux la maanaam juge bi dafa dafa euh, prononcer le divorce mu tranché tamit ni xale yi seen yaay la nekk wala seen papa mm-hmm. seen papa dina leen verser pension alimentaire chaque weer cent mille par exemple wala cinquante mille mm. hormis les médicaux pharmaceutiques scolaires mm. maanaam seen wàllu jàng bokk ci seen wàllu ordonnance ak euh, li ñuy ah. fajoo et bu ñu feebaree seen papa moo leen war a faj c'est une obligation bu ñu waree jàng moom moo leen war a dugal école mm. loolu ça n'a rien la pension parfois na mën nañ ko ci inclure de façon large bu waxee yooyu ba pare parfois góor ki mën na bañ a d'accord ni man d'accord ma samay doom di toog seen yaay wala ku jigéen ki ni man d'accord ma samay doom di toog seen papa wala pension bi li juge bi wax d'accord ma ci loolu <laughs> ba sa appel dugg bu fekkee appel bi tam da nga def appel ba tey d'accord am nga possibilité nga saisiraat encore les juridictions régionales mais ci xale yi dañ ci am am lu importance balaa suñu temps di jeex mhm. mooy tey ji xale yi bu dee xëccoo dafa am Euh, ban age la xale bi war a mën a am pour décider ne man sama papa laay toogal wala sama yaay laay toogal est-ce que tamit xale bi am na am na possibilité wax loolu. waa xëccoo moom bu ñu ko waxee si benn sens mooy lan tey bu fekkee ma dama bind sama sama demande de divorce ma ni ba ma bënd ba ma dem ba ma waxee li nga xamante ne moo tax ma bëgg a divorce ba pare. Mhm. damay wax ni dama bëgg xale yi toog ci man. Mhm. seen papa di leen verser pension am tam la wax droit de visite mm-hmm. maanaam heure bu leen bëggee gis gis leen mën na doon large comme mën na doon restreint mm-hmm. maanaam bu doonee large mooy heure bu leen bëggee gis gis leen bu doonee restreint man tey da ngay gis ni ñu ni la sa doom yi diggante huit heures nga am droit gis leen le vendredi à partir de vingt ba dimanche à partir de vingt heures heure boobu yoon may loolu c'est restreint wala ñu ni la mm-hmm. a gis say doom fekk ni xale yi ay mineur lañu mais ku nekk majeur doo bokk sax ci demande bi maanaam ku xas ba am 18 ans bu ñuy évoqué divorce yow du mën nañu wax ni am nañ doom bu tudd ma Mademba ma tout mm-hmm. mais du ñu wax ni boo bokkatoo ci laaj bi ni fii laay toog wala fii fële ngay toog mais xale yi tant que amuñu 18 ans mm-hmm. ku ci nekk parent bu nekk mën na demander la garde de l' enfant mm-hmm. mais nag c'est juge moom mooy tranché après mooy wax fan la int fi fi muy nekkul day xool ni papa ji yor na wala yaay ji liggéeyul wala li mais li muy xool mooy intérêt xale bi fan la nekk. intérêt xale bi mooy lan c' pas l' intérêt seulement financier. Mm-hmm. du du intérêt financier sax du moins. Mm-hmm. mais intérêt sur le plan peut éducatif. wàllu jàngam wàllu protection voilà wàllu psycho environnement am tey. parce que tey nga dénk doom boo xamante ni yaayam ngeen baal ma si wax de de mœurs légères femme boo xamante ni maanaam euh, m'excuser du terme dafa oyof sër dafa du toog. Mm-hmm. wala adultère peut être moo taxoon ñu tas sëy les enfants wala tey ñu jël papa boo xamante ni il ne pas lucide mm-hmm. voilà koo xamante ni c'est un alcoolique wala yu mel noonu genre yooyu et tout le temps xamuñu ndax euh, comportement mi ngi baax wala yu mel noonu ñu koy dénk xale bi voilà yooyu c'est pas intéressant voilà mais xale yi tant amuñu euh, bu ñu amee 18 ans bokkatuñu mais tant que amuñu 18 ans dañ koy confier kenn parce que il peut arriver sax mais c'est des cas exceptionnels que juge bi du dénk doom ji yaay ji du ko dénk papa ji ah, loolu mën na nekk waaw ça peut arriver juge bi mu confier ko mu confier ko ñeneen parce que dañuy gis ni bu fekkee ne yéen da ngeen a divorcé parce que kii adultère a taxoon wala kële peut-être dafa violent ba tax ñu di leen xale bi tey juge bi du jël risque bi di leen joxaat xale yi d'accord dañu préféré dem dénk ko ñeneen ba ngeen kiyaat léegi nag euh, beneen bi leneen li mooy lan am na lu ñuy wax euh, la procédure de révision de garde mhm. mooy lan tey bu divorce amee man ñu dénk ma xale yi mhm. jarul may jubilé wala may wax ni voilà gis nga ko tey jox nañ ma xale yi mhm. di si kontaan parce que xale yi mën nañ ko retiré waat ci man à tout moment à tout moment. waaw sama ex boo normal ko loolu kaa la seen seen seen jàng. <laughs> waaw loolu kaa la boobu mën nga ci def. Euh, non avec d' autres juristes nga def ci. Ah, da ngay ñëwaat rek yow kay da ngay ñëwaat beneen thème révision de garde dafa am te ñu bëri mm. tamit tey xamuñu ko. mooy maanaam da ngay gis ni dañ lay jox xale bi divorce am na tey yaa yore xale yi ñu dawal benn un an deux ans. Mm. nga ñëw décision de justice daanu sa kaw ñu la dañ lay nangul xale yi. Mm. nga ni moom dem na tribunal manigancé foofu ba jëlaat xale yi manigancé wul dafa gis ni yow xale yi ni nga war a bari leen peut être seen jàng mi bi ngi am les enfants dañu doon am des moyennes de douze voire quatre plus mhm. tey gis ne ils se retrouvent avec des moyennes de sept mhm. six seen papa wala seen yaay man demander la révision de garde ñu retirer la garde wala fekkee dañuy gis ne dañuy feebar tout temps seen feebar seen santé nekk de fragile mhm. loolu mën nga dugal li ñuy wax une procédure de révision de garde su ko defee juge bi na basé sur cette procédure <laughs> dire que woy dem na def manigance ba tey ñu dëgg xale yi si man alors que c'est pas des manigances ni affaire trian mm-hmm. voilà loolu dafa topp procédure voilà ah, y a des faits qui parce que le plus important aussi mooy euh, xale yi nekk ci jàmm waaw euh, léegi nag euh, suñu temps jeex na mais sa coup de gueule bi ah. foog mu tegal la photo bi tax nga da ngay coup de gueule sama coup de gueule bi de <laughs> madame madame Ngom vingt litres d'huile uh-huh. de 14 à 30 000 francs définition parfaite de yoonu yokkute. <laughs> na butéel diwlin 14 000. xam nga ni waaw voilà donc léegi boo ko waaw boo koy xaymaa léegi day nekk euh, litre 1500. waaw léegi nag euh, ëpp est-ce que du ko ëpp sax. Euh, parce que tamit boo demee ci boutique yi. Mhm. d'après li ma litre am na ku ma di litre 2000 francs lay jar. Mhm. réew mi donc fan la ñuy fan la nit la ñuy jëm donc est-ce que nit ñi seen ceeb dina dina donc xam naa ci mbaxar rek la ñuy dëkk. moom nee na le noonu diwlin gi <laughs> nii la demee léegi yàlla defal ñu jàmm suñu njiit yi aussi tamit euh, ñu bàyyi ñu xel campagne yeeg yooyu yëpp neex na c'est bien beau pour ñoom mais ñun tamit askan bi dañu am suñu part mooy liñ leen di liñ leen di sànnil ñun dafa am loo xam ne ñun ñoo ko moom la ñu ko defal mooy ñu wàññi dund gi xam nga wàññi location yeeg yooyu noonu nit ñaa ngi dee facture yaa ngi yokku côté bu ne xale yi ñu ngi yegg si suñu euh, en tout cas njeexantalu émission mm-hmm. di nga dellu siwaat mercredi <laughs> ñoom ñoo ñoom ñoo doon sàkku euh, thème yi donc da ngay dellu si waat mercredi prochain incha allah ñu xuusaat encore nag ci lu baax parce que fii jàngal nga ñu bëri loo xam ne man mi xaw ma ko si woon donc dafay baax aussi ngay askan bi ñu xam possibilité yi ñu am ak euh, comme ni nga ko wax rek du toujours divorce mooy nekk euh, la ah meilleure solution dans dans certains cas loolu yëpp dinañ si ñëwaat mais en tout cas ma lay bàyyi nga tàggoo waaw merci Fatou li ma la wax au début rek merci ci invitation bi comme li nga wax moom droit bon dafa xaw a yaatu tout à fait complexe. Mm-hmm. peut-être loolu la. c'est pas gënuñu fi xam kenn et parce que dëkk bi mën nañu wax ni juristes yi sax ñoo ëpp. et mm-hmm. ay pratiquantes mais loo jàng rek ngay tari. et tout voilà loolu la rek dañu nekk dañu ñëw fii tey juste rek pour xamal nit ñi peut-être seen àq ak seen yelleef loolu moo ñu gën a amal importance. Mm-hmm. parce que tey nit mën na nekk ci erreur léegi le

parfois même li wax sànq rek même euh, divorce tey boo koy waxtaanee c'est bien nga inviter un juriste mu waxtaanee ko mhm. mais parfois da ngay soxla psychologue. Mhm. wala pourquoi pas. si si si voilà parce que tey malheureusement waxuñu ci conséquences yi. Mhm. dañ ko frôler nii rek. mais conséquences yi sur les enfants sur la société et tout divorce. fekkoon temps nañu ko. bu ñu ko développé da xam ni parfois tu as besoin d'un psychologue. pour mën a entamer la procédure de divorce parce que tey c'est bien de demander le divorce de se séparer mais après est-ce que psychologiquement di ko attan. voilà donc c'est des choses yi nga xamante ni ah. da ngeen ci bàyyi xel bu ci imam yi waxee di ci diine wax yoon wax ci li ci droit wax ngeen wuti un sociologue bi wax un psychologue également mu wax leen psychologiquement la personne bi nga xamante ni moo divorcé naka la koy dundee voilà jërëjëf euh, voilà donc mu nekkoon li nga xamante ne moom mooy euh, maye baat ñaan baat ci wàllum yoon ñu gis na nag lu complexe la lu yaatu la dinañ si dellu si waat xam naa semaine prochaine gën ci xuusaat nga xamante ne euh, moom si aussi en tout cas laxasu tey duma la bàyyi nga tàggoo la Houraye suñu temps jeex na. temps di jeex na merci Houraye mu ngi leen di tàggoo ñu leen di jox euh, dig daje suba à la même heure donc 10h ci beneen thème dugg ci li nga xamante ne quand même moom mooy jigéen yi nga xam ne mënuñu am doom seen biir kër yi kon nag à demain incha